xoolal góor gi nga xam ne amoon ak njabootam yàlla baax ko njaboot góor ak gu jigéen njaboot gi bañ demee ba toll ci war a mën a tekki njaboot gu góor gi taaw bi am na ay million ki ci topp am na ay million ki ci toppat am na ay million jigéen ñi ka taaw ka nekk taaw ci jigéen ñi tubaarkàlla mboolem ay moromam mën na leen a sédd ci alalam bari la lool te ñoom ñëpp góor gi moo leen jur yar leen toppatoo leen dundal leen bañ toll foofu. góor gi tawat dab ko mu feebar dëkk bi yëpp di ko seetsi waaye dëkk bi yëpp nag di jiw njaboot gi ñu naan xool leen góor gi ak njaboot gi mu am ak ni doom yi amee ñu koy seetaan mënuñu koo faj mënuñu jënd ordonnance mënuñu ko yóbbu hôpital ku xëy rek daq nga dërëm bi góor gi dafay àgg ci bëgg a yónnee sax du am ku mu ñëpp xëy dem mu toog ba yàgg nag maam na góor gi jëfandikoo ne ku la mag ëppale sagar daal di xam ne njabootam gii alal moo leen gënal seen bàyyi te xam na ne mënatu leen yedd ndax amatul kàttan te xel rek li mën a jàllale fi mu ne mu toog ba xaaju guddi mu daal di jël ak gaalam jénn yi rëy ci nekkoon xam nga bu jëkkoon gaal gaal génk lay doon am xomb mu génn yére ya ba mu set mu daldi wut nag ay xeer ay xotti biteel ay sagari saako def ci gaal gi ba mu fees mu jël xomb la tëj ko jël caabi ji denc daal di bàyyee ba nga xam ne dégg na taaw bi yëngu ci kër ga wàcc na mu woolu ko mu dikk mu ne ko dama bëggoon bu timisee nga gunge ma barab mu ne ko bàyyi du ma fi nekk di gasi reen waxuma la reeni guddi mu ne ko doom gas loo ma la ay reen gunge ma rek mu ne ko bisimilaay guddi jot góor gi daldi di ànd ak doom ji na ko watal ma gaal gii mu ne ko gaal la mu ne ko watal ma gaal gi mu wat gaal gi ñu ànd moo góor gi dox ci àll bi dox ci àll bi lee doom ji taxaw ne ko bàyyi wax ma fi nga jëm man doo dox dofaale ma doo dee nar maa yóbbaale wax ma fi nga jëm man aw ma aw ma sa temps de mu ne ko doom leenu àgg fi ñu jëm moog doom ba ca àll ba mu ne ko gasal mu ne ko li doon wax ay ren rek nga may gasloo mu ne ko duy reen gasal mu gasa gasa gasa gasa gas a gas a ba ne ko doy na mu ne ko doy gasaatal mu gas a ba nga xam ne gaal ga xaj na ca mu ne ko jëlal gaal ci biir moot gaal def ci biir mu ne ko mu suul mu ne ko maatal mu maatal mu ko def ci ne ko la xamtu la mu ne ko xàmmikaay boobu ëllëgee daal di wut benn bant samp ko ci xàmme ko mu ne ko nan dem ñu dem ñëw ci kër gi góor gi ne ko toogal ma wax yow bala ngaa génn mu toog mu ne ko gaal googu ma doon yóbbu ci àll tawat dafay yoonu dee te wopp naa te mag laa xaw ma dinaa jóg xaw ma du ma jóg yàlla yàlla xam. gaal googee nag sama ndaw da tàmbale sama fukki at ak juróom ba nii ma amee juróom-ñett fukki at ñeent lu ma masaa liggéey mag ngi ca gaal ga or ak xaalis ak jamaa rek laa ko duy ba mu fees la ci nekk ci alal yéen ñëpp mën ngeen cee tedd ba xëy faatu te du ngeen liggéey waaye bëggoon na ngeen sonn ni ma doon sonne moo tax nangu ma a wax ma bëgg nag waxtu woo xamee saabaram dogal nañ akub dogalam ma faatu nga ànd say doom yi bàyyi nga ñëw jël gaal gi séddoo taabi daal jooy jooy njistal dal na ko bàyyi jërëjëf yàlla na yàlla yëkkati yàlla na nga wér jàmm daal di génn woo doomi baay yu góor yi ay jigéen yëpp na leen ñun kat def nañ lu ñu xamut noo ngi sàggane sonu baay ndekk sunu baay lu mu dencal su ëllëgee ak si na nu wóor mën nañ cee tedd ba xëy faatu te duñ liggéey ñu ne ah mu ne man mii koy maa ànd ak moom ba ca gaal ga ñu ne ah mu ne maa ko gis or ak xaalis ak jama la feese ñu ne ay waay ndeysaan ba kon kay bàyyi ndekete moom suñu addunaam yëpp noo taxoon muy liggéey mu ne leen kër kër ji yëpp bàyyi doon kër kër yi ñun ñëpp ñoo taxoon léegi na bis ndekete noo bëgg li tàmbalee ci nañ koy léegi nañ koy nañ koy toppatoo nañ fay toog ca moom di waxtaan ak moom lu mu bëgg nañ koy defal nay lekk ordonnance bu ñu amat nañ ko jënd ba yàlla def li gën ñu daal def noonu toppatoo góor gi kàll ba nga góor gi ba muy dem ba muy dee tubaarkàlla ku am yaram la <laughs> gannaaw bi defaat na fa man ñeenti at. ci koo xam ne ki foogoon nañ ne du fa keroog du fanaan ba yàlla dogalee nag mu faatu ñu ne nag léegi nu ñuy def mooy bala ñuy dem ñun dooy bàyyi yëpp nañu dajale waa dëkk bi yëpp def sarax bi saraxal ko tubarkal la buñ noppee fayal ko bor yi ku bàyyi amel bor ñu fayal ko ñu def yooyu yëpp ne buñ jëlee gaal def ko ci kenn ko loo defoon ci yàlla ñu bind ko ñu noppi def loolu lépp daal tànn nag ci seen biir ñeent ñoo dem jëli gaal ga ñenn ñi toog ca kër ga ca néeg ba. ñu tëj ñu tëj buntu kër bi ne bu kenn dugg bu genn gan dugg te ci kër gi nga dañuy jëli gaal gi seen doo ñu daal di ànd ñeenti doom yi ànd ñaari doom yu jigéen ñaari doom yu góor ña nga dem jëli gaal ga ba ñu demee nag sulli gaal gi di ko ñoddi di génn ba gis gaal gi ñu ngi kontaan bég di waxtaan di ñaanal seen mbaay nag ya fa mu jëm yàlla na fa yàlla yërëm bi ñëwee ba ci kër gi ne ba ci ëtt bi delloo buntu kër bi mu daal ne leen xaar leen baay wax na fu caabi ji nekk dem jëli caabi ji dikk ba ñu dikkee ñu ne kenn ko na génn kayit bi nga xam ne moom la fere woon ci bi bàyyi feebare ak bàyyi gaañoo ak li mu fayoon ci miraas mi kenn ku ne ñu kenn ku ne génn soo koy ne man lii laa fayoon man man ñaar fukki junne ak ñeent ki ne man juróom-benn fukki junne ak ñaar ki ne man ñaar fukki junne yëpp kayit yëpp génn ñu jox kenn muy calculer ñu nekkaat ci gaal gi gis ay sagar saako ak ay xotti biteel <laughs> ku la mu ëpplee sagar doom yi lañ defoon seen bàyyi di ñaaw téef baay bi jur la ci farsa yàlla ak sunnas muhammad fattalu la làggalu la yor la ba nga man dara la nga mën nga iñaane ko sa baay sa baay dem na ba nga xam ne gannaaw yàlla bu faatu woon ci tumuraanke lay faatoo mu jëfandikoo am xelam ndax doom lu mu mën a mel ci kër àdduna rek baay bëpp koy pexe te ku la màggati ëpp